mbokk yi dalal nañ leen jàmm tey nag sunu gan avocat la cour laata ñoo soobu ci waxtaan wi ñu bàyyi ko mu présenté pour ñi nga xamante ni ñoo koy teewlu. maître salaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi lay fay du nu sa mboolem auditeur di wax ni man may maître Amadou Ali Kane. nekk avocat à la cour. bokk ci kuréel bi ñuy wax RADDHO. doon fa vice président du conseil d' administration. li olof naan lu def waxul ay di jàmbat coowal Guy Marius Sagna mu mel ni jamono yi takku ngeen ci ba dëgër li ngeen bëgg mooy mu génn prison fi mu ne xeex bi yéen fan ngeen ci toll. waa xam nga Guy Marius Sagna. ci ñun koo xamante ne dafa may boppam askanu Sénégal parce que moom dafay seet li nga xamante ne mooy intérêt population sénégalaise alors mu taxaw ci xeex ci mu jaral ko ñu jàpp ko yóbbu kaso moom ak juróom ñetti nit ñeneen ñu dox ba ci buntu palais présidentiel ñu jàpp leen alors ba ñu leen jàppee juróom-ñett yi génn nañu moom kot moo des kaso ñu ne mais ñoo xamante ne ñoo bokk liñ def bu yoon nekkee benn kay pour ñëpp ci bu ñu bàyyee ñeneen yi war nañ ko mën a bàyyi. bon nag jàpp bi ñu ko jàpp. doonatul pour li mu def. mais dafa doon parce que xëy na moom. dafa am fit dafa ñeme génn di xeex donc dañu bëgg. noppiloo ko. donc politique dugg na. avocat yi koy dayool ay avocat yu xarañ lañu def nañu seen liggéey ba mu mat sëkk ñu ngi leen ci sant di leen gërëm. Mm-hmm. waaye nag dafa tombeek ñu ci biir justice bi. mu am procureur boo xamante ne dafa ci am doole ba pare tënku ci nguur gi mm-hmm. lu ñu dugal rek pour ñu bàyyi ko mu gàntal ko alors loolu moo tax ñu ne léegi nag euh, foog ñu ñëw wàllu si mm-hmm. ci fànn bu ñu feete ñun suñu wàllu fu mu jëm dañu ne njëkk dañuy def plaidoyer maanaam dem ci ambassade yi dem ci force religieuse yi dem fépp fu ñu war a dem ñu xam ne yaakaar na ñii am nañu baat mën nañu wax ak nguuru Sénégal wax ko dëgg ñu dem seeti leen ensuite danañu seet ndax mën nañu aussi yóbbu dossier bi cour de la CEDEAO xam nga cour de la CEDEAO dafa nekk cour boo xamante ne am nañu kuréel boo xamante ne bu fekkee violé nañu droit de l'homme mën nga fa yóbbu clamé foofu mm-hmm. te ñun jàpp nañu kii dañu violé alors le droit au procès équitable maanaam daal euh, atte bu tegu ci yoon euh, arte dans un délai raisonnable acté de manière impartiale yooyu yëpp violé nañ ko ci dossier donc dañ jàpp dossier bi yóbbu ko foofu mm-hmm. su ko jaree mm-hmm. alors maître waxtaan bi li ko gën a sooke sax mooy wàllum démocratie ñu bari gis ni ci wàllu woowa ñun dañ cee dellu ginnaaw lu bëri est-ce que même seetlu bi nga am waa xam nga démocratie mm-hmm. ak euh, état de droit ak liberté dafa nekk loo xamante ne kenn joxewu ko rek alors définitivement da nga koy am léeg mu yokk léeg mu wàññeeku wala léeg sax mu jeex ci dëkk parce que gis nañu ay dëkk yu mu amoon situation politique taxaw ñu bees ñëw dindi ko mhm. gis nañ aussi fu mu amul woon situation politique bu bees ñëw ñu tegaat ko donc nekkul loo xamante ne rek dafay am définitivement ba faw dafa nekk loo xamante ne foog ñu koy roose fa mel ne fleur sinon dafay dee roose bi mooy lan mooy nit ñi bàyyi ci xel nit ñi di ko surveiller di ko xamal nit ñi di def promotion mhm. dégg nga xamal ne lii droit bi am na droit bi am na droit bi am na loi nanga moo ko may loi nangam moo ko may su amee fu ñu ko jalgatee nit ñi taxaw xeex loolu mooy protection. Mhm. yóbbu ko ci justice bi moo xam moo justice interne sur le plan national wala sur le plan international. Mhm. ba ci ay Nations Unies tout ça. Mhm. noonu la ñuy sàmmee droit ak liberté comme ni nga ko waxee nag jamono yi ñu toll nii alors seetlu nañ nag lu bëri lu Sénégal yi amoon. dafa mel ni tey jii ñu ngi koy remettre en cause. boo jëlee ci manifestation yi. ba ne léegi lu ñu interdire marche te moyens yi ñuy teg pour ay marche mais moyens yooyu dafay jéggi dayoo bu ñu defoon maanaam ñettal ba. ceer bi ceer bi. Mhm. dinañu encadrer mu am te coow du jib. Mhm. mais dañu seetlu ne kilifa yi dafa am ñoo xamante ne. vraiment ñoom dafa mel ne interdit mooy seen seen i affaire <laughs> comprendre loolu c'est pas normal bon yeneen boo jëlee ci wàllu justice. Mhm. dafa am ay lois yu fi amoon ñu yàgg ko mais toujours ñu ngi fi mooy ay article quatre-vingt boo xam ne acte manœuvre de nature à troubler l'ordre public. Mhm. mu ngi mooy kii mooy dégg nga maam offense au chef de l'État yooyu yëpp mu ngi fi xam nga. mooy aussi tey jii nii buñ la mayoon liberté provisoire procureur def appel mais da ngay des kaso ba appel bi ñu atte ko. xam nga loi yëpp a ngi fi te yàgg nañ ko ŋàññi mais pouvoir bu ñëw bàyyi ko fi. beneen wax ji mooy lu jëm ci indépendance de la justice ñu bëri gis ne suñu wàllu yoon den koo jéng wala dafa féete boor. tey jii nii loolu lan moo ciy pexe. man de li ma jàpp moo di ne que xam nga réew ñetti pouvoir ñoo ci am pouvoir exécutif législatif. maanaam assemblée ak pouvoir judiciaire mooy ñi àtte man dama jàpp ñetti pouvoir yooyu dañu war a collaborer maanaam dañu war a ci liggéeyandu ci anam yu rafet exécutif bi maanaam eh, nguur gi ñi yor nguur gi mm-hmm. président de la république ak ay ministre am waruñu jàpp ñeneen ñi comme ñoo xam ne dañ leen war a noot mm-hmm. waruñu jàpp assemblée rek comme ay xuusma ñàpp lu ñu soxla rek ñu yóbbu fa defal leen ñu ko ñooñu def mm-hmm. waruñu jàpp pouvoir judiciaire aussi ku ñu sàpp ja ku ñu bëgg a rek ñu fa jàppaleen ñu diw bu mu génn. dama jàpp ni ñoom ñëpp li leen tax a jóg mooy defar Sénégal. waruñu xeex seen biir kenn war xeex sa morom dañu war a joxante ay loxo seet ku ci nekk ci fànn bi nga nekk lan nga nan nga war a taxawee ci wàllu defar Sénégal boobu ci wàllu justice bi nga wax. si jamonoy Senghor jamonoy président Abdou Diouf. dafa amoon ay autorité ay kilifa yoo xamante ne. ñoom ñooñu. ñoo nekkoon chef du pouvoir judiciaire président Senghor jamonoom y avait le président Kéba Mbaye xëy na avant Kéba Mbaye amoon na ñeneen mais man Kéba Mbaye laa ci gën a ràññee yàlla na ko yàlla yërëm te yaxee ñu moom Kéba Mbaye boobu c'était le chef du pouvoir judiciaire exécutif du doxal dara ci justice te laajuñu ko avis moom su affaire aussi amee xalaat ci wàllu justice amul sax audience ak chef de l'État day jóg rek ñëw gis ko te bu ko waxee dañ koy déglu jamono yi président Abdou loolu aussi moo fi amoon amoon na fi président Ousmane kamara moo am fi président Youssou Ndiaye ñooñu bala ñuy def dara laaj leen seen avis ci justice lu ñu d'accordul du am bu ñu gisee aussi yan doxali ñi d'accorduñ ci ñu sol seen dàll dem seeni kilifa yi wax leen te buñ leen waxee ñu déglu leen mais loolu moo amatul tey pouvoir exécutif bi dafa mel ne dafa jàppe ñi comme une autorité administrative comme ñoo xamante ne daal ñu ñu yëlif lañu lu leen neex rek ñu def loolu loolu nag moo tax justice bi mel ni mu mel xam nga indépendance de la justice c'est vrai am na sur le papier loi yi bind nañ ko mais dans les faits ci doxalin bi des na mm-hmm. lan moo tax mu des c'est parce que ñu ci ëpp dañ leen di abal làmmiñ mm-hmm. dañ leen di abal bët yow dañ la teg ci place boo xam ne waroo fa toog parce que nekkoo titulaire intérimaire nga mm-hmm. te boo doonee intérimaire man nañ la affecté à tout moment buñ la tegee def la chef te juridiction nga nekk intérimaire ñu war la affecté place bi nekk place bu bakkane mais yooyu itam c'est humain nga fexe toog toog foofu mhm. bokk na ci li tax nga fay toog mooy mais li kilifa yi bëgg nga koy def mhm. donc foog ñu jàppale magistrat yi mhm. ñu mën a gérer seen carrière loolu moo tax ma ne nañ leen considérer comme un un pouvoir et non comme une autorité mu am un chef du pouvoir judiciaire buy seet moom itam ci akulaay taalaam ci magistrat yi place bu ne kan moo gën a yelloo toog foofu ñu teg ko foofu. ñu bëri gis ni tam Macky di président euh, conseil supérieur de la magistrature poste boobu doon muy occupé dañ ko fa war a jëlee euh, yow foofu nga taxawandi. man présence su président de la bi conseil supérieur de la magistrature man gêné ma. Mhm. parce que li ma njëkk a wax a tax. dama ni man justice pouvoir la. Mhm. il faut que mu am un chef. lui, il est le chef de l'exécutif. Mhm. Le président Macky Sall est le mhm. mu am un chef du pouvoir judiciaire. Mhm. koo xamante ne conseil supérieur de la magistrature du def dara te moom àndu ci. alors moom moo xam magistrat moo nekk ak ñoom moo xam seen liggéey moo xam ku ci mën ku ci mënul ku nekk fa nga mëne su amee ay ndombo tànk ñu war a takk moom na seet ci axulaay taalaam nag. waxuma nag mu jël ay nitam rek ay mbokkam ak xaritam di leen place déedéet mm. mais na xool en toute objectivité en toute loyauté place bu ne kan moo fa war mën a toog. Mm. proposer ko. te bu ko proposer. Mm. président du ko dindi keneen du ko dindi. bëgg ilaa ki ñu fa teg ñàkk doxal ni ñu ni mu waree. loolu bu ko amee bu amee président bu nekk fa bañ fa nekk. du changer dara. du changer il faut que. Mhm. magistrature yi ñu considéré comme un pouvoir muy doxal comme ni assemblée nekkee pouvoir président assemblée moom mooy doxal. assemblée yor bi yor kees bu assemblée di dawal. Mhm. très bien maître ñu wax ci kuréel yi nga xamante ni yu mel noonu yow ci nga bokk mooy ñi nga xamante ni ñooy xeexal doomu aadama bi ak ak yelleefam fii ci Sénégal alors yéen ñan ñoo leen di jàppale ñan ñoo nekk seen bailleur ñan ñoo nekk seen ginnaaw. waa man li ma la bëgg wax rek ñun d'abord dañuy def ay cotisation maanaam suñu membres yi dañuy cotiser cotisation nag wax dëgg sa dëgg yàlla barewul am na sax ñu bëri sax ñu ko dul génne donc cotisation moom mënte doxal organisation de Barlog dafa néew te ñëpp duñ ko joxe benn alors ñun nag dañu am ay bailleurs de fonds fondation ñoo xamante ne ay borom alal yuy teq dara seen alal ni lii man dama ko jagleel fan sàngam ak sàngam parce que man lii pour promotion xale lii pour promotion droit jigéen lii pour promotion liberté d'expression ñooñu la ñuy dem set bis boo defaree projet nga set domaine bi mu concerné ban fondation moom mooy liggéey ci loolu. nga dem yóbbu fa projet ñu xool. bu méngoo ak ñoom seen philosophie li ñuy doxal ñu financé la. bu ci méngoowul duñ la financé te buñ la financé itam tekkiwul nga jël xaalis ba noose ko def ko loolu la neex déedéet. ñoom dañ ñëw di la seytu soo foo toll. xam nga soo doxalee ni ñu ko waxee woon ni ngeen ko déggee woon ñu renouveler convention bi xam nga beneen at walla diir bi bu jeexee ñu dolli ko. boo ko doxalul ñemale ko fa te yow mën nañ topp ci justice. ah oui ah mais bien sûr parce que da nga jël seen xaalis. da ngaa luubal voilà xam <laughs> mhm. mais heureusement ci biir ONG yi. Mhm. loolu amu fa. Mhm. ñoom xaalis bu ñëwee niñ ko déggoowee ak bailleur de fonds noonu lañ koy doxalee. yéen état du leen jàppale du tout. ba dégg ni daal gisuma fu état jàppale ONG Droits de l'Homme te pour man dama jàpp ne loolu njuumte la. état mu ngi jàppale les ONG et les associations de journalistes te pourtant presse bi elle est libre indépendante dafay bind lu ko neex mm-hmm. xam nga taxul ñu jéng mm-hmm. mais état du jàppale ONG droits de mm-hmm. man jàpp naa ni loolu erreur dafa am loo xamante ne état bi waroon na leen jàppale foofu par ci wàllu loi su yi seen siège ci wàllu da nga téléphone yi communication yi fayal leen ko mën na sax dem ba ku ci sax ñu jox la une voiture affecté ko à l'ONG nga loolu yëpp tekkiwul nag que ONG bi day tàccu du état def ONG du ñu opposant ONG dañuy def promotion ak protection des droits de l'homme maanaam dañuy seet droit yi nga xamante ne moom la ñu may nit ñi suñu loi yi ci biir fii constitution ak yeneen ak convention internationale ci biti yi ñu may nit ñi ñu yéen nit ñi si loolu xamal leen am ngeen droit sangam droit sangam droit sangam. Mm-hmm. bu ñu jalgatee droit yooyu ñu dénoncer moo xam ay communiqué la ñuy def moo xam dañuy saisir justice. Mm-hmm. comme aujourd'hui le cas de Guy Marius jàpp nañu am na ay droit yu ñu jalgati moo tax ju jóg. Mm-hmm. te loolu mais jàppale état bi la parce que xam nga état boo koy dawal itam matuloo. c'est pas parce que. tu es président, tu es premier ministre, tu es ministre, tu es responsable, que tu es parfait déedéet. li mm-hmm. nga juum il faut mu am ñoo xamante ne boo juumee ñun la juum nga. Mm-hmm. nga mën a rectifier wu. loolu mooy tax réew avancé. donc ñun loolu mooy suñu yite. Mm-hmm. loolu aussi ñuy def dañ koy def aussi en direction normalement de toutes les forces même l'opposition. bu ñu defee loo xamante ne jàpp nañ lii baaxul. war nañu mën a jóg wax ni ah attention yéen def ngeen lii baaxul bu leen ko def alerte mm-hmm. donc dañuy def un rôle d'alerte un rôle de veille maanaam de surveillance mm-hmm. et un rôle également de protection mm-hmm. maanaam soulaaje dem yi suñu dem loolu mooy suñu liggéey maître jërëjëf waaw maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi maay maître Amadou Ali Kane nekk avocat à la cour vice-président de nekk ci droit l'homme depuis plus de vingt cinq ans. ñu bu baax maître. ba suba incha pour beneen invité.